assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci waxtaane loo xam ne yaakaar nañ ne dina war soxal ñenn ñi waxtaan wi nag day jëm ci saar wu tedd wii di suuratul qadr liñ ci fas yéene waxtaane mooy al i'jaaz al adadi fi suuratil qadr muy lee miracles numériques dans la sourate al qadr muy saar wii di inna anzalnaahu fi laylatil qadr am na ay kimtaan ci wàllu lim ci wàllu wàññi wala ci wàllu chiffre yu ama am solo ñu man cee jànge lu bëree bari bokk na ci li ci gën a ràññeeku rekk mooy ñiy dàkk laylatul qadr ci ñaar fukkeelu guddi bi ak eh, juróom-ñaar muy vingt-septième nuit dàkk nañ ko fu mu yaakaaroo donte itam ña koy dàkk faneen itam fañ koy dàkk ñàkkute yaakaaru tabaarakallaahu waxtaan wi dama ko fas yéene tënk ci juróomi tomb muy cinq point tomb bu njëkk bi mooy euh, saaru xadr booy wàññi baat yi muy mooyi day nekk fanweeri baat muy trente mots yemook limub xaaji alqur'an xaaji kaamilu alqur'an ndax kaamilu alqur'an juróom benn fukki isib la muy soixante euh, isib wala soixante parties léegi nag soixante partie yooyu soo koy séddale par ñaar par ñaar par ñaar trente xaaj lay doon kon limu baati saaru xadr fanweer la muy trente yemook trente parties yi nga xam ne ñoo composé kaamilu alquran ci boo koy séddale par ñaari isib ñaari te boo ko bëggee wàññi nii nga koy waxee danga naan inna anzalnaahu fii laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu warruuxu fiiha bi idni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta matlail fajri bu ma juumu daal ni ma ko waxee ku jëloon sa di waññi baat par baat mot par mot trente mot la lay la lay jox kon loole itam wane na màggaayu saar bi ñaareelu tomb bi muy deuxième point bi mooy sooy wàññi araf yi muy lettre yi lettre yi composé surat al qadr da ngay gis na day nekk euh, téeméeri araf ak fukk ak ñeent muy cent quatorze lettres cent quatorze lettres muy tolloog limub saari alqur'an yi ndax saar yi composé alqur'an téeméeri saar la ak euh, fukk ak ñeent muy cent quatorze saar loolu itam di wanewaat beneen kimtaan ci màggaayu euh, saar wi euh, beneen bi itam mooy euh, bu ñu ñëwee ci chiffre wala nombre vingt sept nombre vingt sept su boobaa itam ci lañu am suñu ñetteelu tomb bi muy troisième point bi euh, ñiy dàkk euh, guddig laylatul yi ci vingt-septième nuit bi muy ñaar fukkeelu guddi bi ak juróom-ñaar dañu seetlu ne baatu laylatul qadr sooy wàññi lettre yi day doon neuf lettre laylatul qadr ndax danga naan laam yaa laam taa marbuto alif laam qoof daal raa li suma juumul neuf lettres lay doon muy juróom-ñeenti araf te booy seetlu baatu laylatul qadri ñëw na ñett yoon ci saar wi muy trois fois la répété ci ci saar wi léegi nag boo nee trois fois neuf wala neuf fois trois dalay jox dalay jox vingt sept dalay jox vingt sept loolu lu jar a bàyyi xel la beneen bi itam di tolloog sama ñeenteelu tomb muy quatrième point moo di boo jëlee alqadr rek bi yoon bàyyil layla laylatu jël alqadr bàyyil layla nga jël qadr booy seetlu da ngay gis ne. Euh, alqadr moom itam dafa ñëw ñett yoon ci saar wi waaye xoolal ñett yoon wi ñetti yoon yi yoon wu ci nekk ban position la taxawee ban position maanaam moowu qadr ban position la taxawee ban lim la amee mbokk yi booy seetlu dangay gis ne boo ne inna anzalnaahu fii laylatil qadr qadr foofu mi ngi taxawee ci cinquième position muy juróomeelu baat nga ne wama adraka ma laylatul qadr foofu itam da ngay gis ne qadr mi ngi taxaw ci dixième position muy fukkeelu baat waaw nga ne laylatul qadr foofu itam da ngay gis ne qadr mi ngi taxawee ci douzième position muy fukkeelu baat ak ñaar kon cinq dix douze boo ko additionné muy nga boole ko def cinq plus dix plus douze dalay jox vingt sept vingt sept te alqadr mooy fri le destin parce que laylatu mooy la nuit waaw laylatu mooy la nuit alqadr mooy la destin laylatun une nuit al laylatu la nuit waaw alqadr la destin kon boo ne laylatul qadr muy jox la la nuit di destin baat bi tekki destin nag muy alqadr moo ñëw ñett yoon ci saar wi benn yoon bu njëkk bi mu nekk ci cinquième position nekk juróomeelu baat yoon bu ñaareel bi mu nekk dixième position nekk fukkeelu baat yoon bu ñetteel bi mu nekk douzième position muy nekk fukkeelu baat ak euh, ñaar nga additionné ne cinq plus dix plus douze mu jox la vingt sept kooku itam day gën a yokkaat euh, yaakaar mbokk yi tedd yi euh, juróomeelu tomb bi te mooy dernier point bi cinquième et dernier point mooy boo jëlee baatu hiya hiya booy wàññi baati suuratul qadr hiya mi ngi taxaw ci vingt-septième position maanaam dafa nekk ñaar fukkeelu baat ak juróom ñaar waaw te hiya li muy tekki mooy moom guddi gi kon baat bi tekki moom guddi gi maanaa guddi laylatul qadr baat boobu mi ngi taxaw ci vingt-septième position muy dafa nekk ñaar fukkeelu baat ak ak juróom-ñaar mbokk yi daal wax dëgg yàlla boroom xam-xam yi dajale nañ ko ci guddig laylatul qadr muy lu yaakaaru ñu ne woon nañ ko séddoo ak yéen di taxawandi fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter di aimer ndax fi la njariñ yi di gën yaatoo jàngeen jëf wasalaam